Kane nag ci ñooñu la bokk yaakaar naa am na combat bu nekk suñu biir ñu bàyyi Modou Mbaye mu reporté ko ñu dellu si waat. alaaji Bekaay Boy Fandène moo koy bëree ak Gibson mbokk yi Boy Fandène moo nekk à droite moom moo daw jëli noonu Gibson kor na ko. Fadam maa ngi lay nuyu bu baax a baax gis nga combat gaaw na ñaari xale yi mel nañu. ñu bëgg a jeexal combat léegi. waaw di Boy Fandène ak Gibson. Ah. yaakaar naa ne jàpp jàpp am na trop. waaw waaw waaw. ñoom ñaar mbokk yi ñu ngi jàppande Gibson mi ngi doon ci suuf te booy xool ci wàllu taxawaay Gibson booy Fandène da ko ëpp rallonge lool mais mi ngi essayé mi ngi jéem mi ngi ut mi ngi ut mbokk yi attention xar jéppeen lu muy lu a def. filage bee baaxul. boobu ah. ba mu romb mu doog ñëw xar jéppeen bi. ah ba baaxul. filage bee baaxul mais bu ko fa delloowaatee ndax waa ji ndaama bi loxom bi nekk ci biir danger la ci moom. waaw bu ko kee fiile day romb bu ko xar jëppatee day jaaxaan. ok te loolu lu jar kon moom loxo bi ci biti la ko war a génne. waaw kay dafa war a génne loxom ci biti pour mu mën am équilibre bu ko waaj a fàqatee mu mën a nekk à libre. mu bañ a mu waaw mbokk yi vous la 2STV la première de télévision privée du Sénégal. parce que yéen ànd ak yéen bëggalante ak yéen mbokk ci waxtu yi nga xamante ne mbokk yi làmb lañ ci fas yéene ànd ak yéen bëgg leen ci ceeg comme ni ko HBK waxee jàmbaar production moo woote tey muy bis bu mag bis bu am solo ci làmb boole ñaari génération yu bokkul ñaari génération yi ni ñu bokkul noonu la seen style de bëre waaye mbokk yi Djibson ak Boy Fandène ñi ngi ci digg géew bi ba léegi mbokk yi Siteu ak Lac de Guiers moo bis bi nga xamante ni mooy bisu tey bii di le 19 novembre ci arène nationale waa Sénégal doon xaar waa Sénégal yàqamti woon ko waaye xam ngeen ni combat bu mag balaa ñu caa yàgg am na ay combat préliminaire yi nga mooy taaral bis bi waaye yi nga xamante ne ni mbokk yi ci la jaar defar carrière am ci combat yu mel ni HBK yu mel ne ni mbër mbër mbër mbër ci combat yu mel nii yàgg nañ ko cee naw HBK yi. yàgg na cee feeñ Ama Baldé comme premier combat la jot a bëre benn yoon. ndeysaan ko dootoo ko bëreet ndax mbooloo ma nga xam ne moom la indi woon. ndeysaan di doomi Fallaay te wane njàmbaar. ndeysaan fii. daanaan yu bari feeñ nañ fi waaye yàggunu fi. ñu war a doon daanaan ñëpp war a doon champion du ñu yàgg ci petit komba waaw mhm. boo ko dee xool. dangay ngay daal feeñ rek bëre benn combat. ñaar ñaar. nga dem lu mu bari bari nga dem sa yoon. wallaay ndeysaan loolu moo yàgg am ci làmb. dëgg waaye yaakaar naa ni xale yi tamit. ku ci wane sa bopp ci lu di moment yu toll nii. waaw benn yoon. waaw ñaari yoon. waaw nga gis ñu ne nañ ko tëggal grand combat. nañ ko bu fekkee am nga mobilisation. foofu la làmb tollu mbokk yi muy loo foo xamante ni phase bu am solo fadam. waaw ndax attention Djibson fanden da koo bëgg a bëgg laa ilaaha illa llaah war na ko nombo. booy fanden bëreel Djibson bëreel. bëreel Boy Fandene ak Gibson. at ah, déedéet siflewul de. siflewul de. sifle laa ilaaha illallah. daan na ko. bëri leen bëri leen bëri leen bëri leen. mbokk yi kon doon doon ci combat bi nga xam ne moo di Lac de Guiers. ndeysaan HBK yi. ak Siteu. Lac de Guiers bokk ci génération bi nga xam ne en 2006 ñoom ñoom ñoom bëri woon classe ba. sa xel war a dem ci Boy Sey. ndeysaan sa xel war a dem ci Yékini Junior. ndeysaan sa xel war a dem ci Zos. ci Zos. Samba. Bac Seras. Bac Seras. Balla Diouf ndeysaan. ah. Tafatine. Tafatine. waaw waaw. ah Balla Gaye. Modou Lo uh-huh. ñooñu bokkoon nañu Modou Lo sa bokkul woon ci classe boobu. waaw waaye ci génération boobu la bokk génération boobu la bokk. ndaxte 2005 la ñëw. waaw. boobu ak léegi yaakaar naa ne ba mu bëree ca aar Assane Diouf. waaw kombaam ba. waaw ak nga xam ne moo di Khadim Diallo. waaw ca loolu xam ne xale bi war naa a dem yoonam. bu dee wax xale yi nga xam ne feeñee nañu ci premier combat. xel war na dem ci guy gi. guy gi moom tamit daan na def tegale na cinq. waaw ba six yoo xam ne ay petit combat la ko bëree ko bëree. waaye ci la nu gisee nii war naa mën a dem yoonam. ndeysaan si tamit di bëre tey. waaw bëri na ay combat yoo xam bu ñuy lim palmarèsam. waaw boo dee xool. six yi wala sept waaw mi ko bëree ci petit combat. moog naxa naxa moog rouge bordeaux. moog rouge bordeaux ak yeneen yu bari. yu bari. Mhm. ci petit combat la ko bëree. Mhm. waaye li ko indi fii jom la. waaw parce que doole ja tolluwu nii. waaye xel ma ak bëgg-bëgg ba ak jom ja bokk na ci li tax tey ji mu bokk ci ñi am ñooy bëre ay ay ay ay ci làmb ji. ndeysaan ku ci mel ni Lac de Guiers numéro 2 yaakaar naa ne Siteu. place bi mu toog bokk na ci place bi HBK VAR bi jox na victoire ki nga xamante ne ni moom mooy Boy Fanden. waaw loolu loolu la VAR bi def. Karajo indil ñu ko mu leer ba pare Karajo ñun bu gaawee ñu jël ah. non var bi bi yéeme na. var moo jox. moo jox booy. booy Fandène victoire waaw. te kee moo bëri woon ba daan. waaw daanoon na ba yëkkati loxoom te première action ba te la te la te la ba amee. loolu moo tax var bi baax fi. baax na fi trop. looloo tax baar bi baax yi. ndax dina dimbale mbër mu ndaw bi nga xam ne dafa amoon na. réalisateur bi mu indil lu combat bi. voilà waaw mi nii. Ah. waaw wax na dëgg. wax na dëgg. yu gaaw. ndeysaan nii la waaw téléspectateurs yi ak ñi nekk ci biir stade bi stade bi d'accord nanu waaw d'accord nanu d'accord nanu waaw d'accord nanu HBK yi ndeysaan mbokk yi ñu fàttali leen ba tey rek ñu ngi waaw loolu mooy jël bu mujj bi jël bu mujj bi waaw jël bu mujj baa ngi noonu waaw waaye quatre appuis mu def dafa gaaw waaw gaaw loolu quatre appuis mu def dafa gaaw loolu waaw loolu mooy jël bu mujj bi kon ñu jàpp ni Boy Fandène moom moo daan Gibson moom waaw macha allah. léegi mu des beneen combat bébé boy bambara. ak Darso ak Darso. waaw waaw boobu tam combat la. waaye yaakaar naa ni Fadam tey ñëw nañu ci bis bu mag ci lam waaw ah, ñëw nañu ci bés bu mag tey jii ci diggante ki nga xam ne ni tey jii mooy diggante Lac de Guiers numéro 2 ak Siteu. Siteu nag marqué na war na benn point boo xam ne ni tey jii point boo xam ne